Euh, Mado la ñu fay àndal ci ay initiative comme chaque vendredi euh, tey ñu dem seeti euh, ki nga xamee ni mooy soxna Bintu Zahra Lo moo mhm. jiite ab daara joo xamee ni daal jigéen ñi rek lañu ñu fay jàngal waaw ba Cheikh comme ni nga koy waxee donc ab daara la boo xamante ne sunu benn xale yi quoi voilà ah. xale yi surtout góor yi <laughs> rawatina donc moom la fay jàngal li nga xamante ne moom moo di alxuraanul karim ak nuñ koy waxee ay pratiques religieuses li ñuy def rek dañuy ànd ak ci ndimbalu ki nga xamante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 alquran laa juddoo te tam ak sos daara loolu moo tax bi ma ñëwee fii nekk fi Dakar di jàngale ci école publique yi comme enseignante arabe sama xel bi yëpp mi ngi woon ci naka lay def ba taxawal daara comme ñëpp ndax euh, arabe daf ne laysal fata man yaqulu kaana abi lakin al fata man yaqulu ha anaza jàmbaar du koy wax sama papa nekkoon na li nekkoon na laa jàmbaar dëgg mooy koo xam ne nii danaan maa ngi nii. internat alquran moom boo bëggee mokkal wala nga wàcc il faut internat pas wàcc loolu moo tax ñu ubbi fii daara ji def ko régime internat xale yi di fi jàng alquran kese bu jàngee jàngee alquran kese. Euh, éducation religieuse ba wàcc walla ñu mokkal ñu doog a dem jàngi àdduna maanaam jàngi francais wala franco arabe ci li nga xam ne nii étape yi nga xam ne nii waroon nañ koo def 6 ans gannaaw buñ mokkalee alquran ba pare mën nañ koo def ci 3 ans daara ji benn ko soseeg léegi am na ñett ñu fi mokkale ñoo xam ne nii ren jii lañ mokk noonu waaye vu li xewoon ci dëkk bi muy pandémie bi moo tax ñooñu dañ leen a euh, dañ leen a euh, continuer ñu ñu def li ñu waroon a def lépp ci biir daara ji euh, te waaye defeguñu cérémonie bi dañoo am suñuy heure spéciale fii 4 heures et demie la ñuy jóg jàng ba 7 ñu def ñu xale yi dalluwaat ba 9 ñu jógaat jàngaat ba midi bu midee ñu dalluwaat ba 3 heures ñu jëlaat ba 5 ñu toog noppaluwaat ba 20 euh, heures ñu jàngaat ba 20 heures wala 21 heures ñu daal di reer daal di tëdd. balaa bu fajaree ñu jógaat loolu lañuy def di lundi au vendredi loola nag ku ci tënku ça dépend ci xelu xale bi am na xale yoo xam ne nii ci ñetti at ñu wattu kaamil bi mokkal ko am na ñoo xam ne nii ñetti at ak genn wàll am na ñoo xam ne ni dina dem ba ñeenti at am na ñoo xam ne ni itam dina dem ba juróomi at. bi Covid bi dikkee ñun ci sunu ci kàttanu yàlla dañ fi toogoon bañ nañ ko ba dañ daan jël feetu korité mais jëlatuñ ko woon jëluñu ko woon. dañu téye woon fii xale yi ñu ñëpp di ma jàppale parents itam dugg beeg génn bi dañ ko euh, ba limité woon bu baax a baax ba nga xam ne ku fi ñëw sax di seet sa doom doo egsi ci kaw maanaam doo egsi ci xale yi ci bureau bi ngay yem def def lijjanti li ngay lijjanti après nga demaat waaw noonu lañ jàppee woon ci euh, ci ci euh, pandémie bi ba nga xam ne nii yàlla musal nanu ci période période bi ñii nii moom internet moom ñu fii moom waaw waaw bi bi euh, président ne leur egrave lañ arrêté woon ñi nga xam ne nii ñoom dañuy wàcc di de seen kër ak di ñibbi waaye jamono yii nag fi mu ne nii waat nañ ko defal leen daara vacances nag xale yi dañ koo soxla mu ngoog daana jàngoog maa ngi euh, euh, wax ni ay jigéen rek waaye daanaka ay góor sax. ay góor euh, lay tàggat ci alxuraan. Mhm. waaw ba Cheikh comme ni nga ko waxee donc ay góor yoo xamante ne ñu ngi toll ci. juróomi at ak benn ah. ba dix ans ba fukki at donc fa ñu commencé dal ci fi nga xamante ne moom moo di seen daara jooju nga xamante ne comme ni ma ko waxee dinañ leen jàngal alxuraan waaye surtout pratique religieuse yi xam naka nañu war a li ñu naan pratiquer seen diine macha allah donc buñ fa demee à partir de six ans jëm dix jokkonoog ci diiru 3 ans li gën a ëpp 5 ans waaye toujours sa dépend ci capacité xale bi macha allah nu muy moqalee li nga xamante ne moom moo di alxuraan bu ñu demee nag ba génn macha allah ku ci nekk léegi mun nga dem dugg ci li ñuy duppee waaye école française parce que yàgg nañ di dégg alxuraan bu jiitoo ci bopp xale macha allah dina tax mu am bu baax li di ubbee euh, ouverture ak ubbikati ci euh, wàllum jàng waaye comme niñ koy waxee toujours comme dafa euh, tombeek li nga xamante ne moo di Covid bi ñoom itam bi mbas mi tàmbalee lépp ñoo xamante ne dañu faraloon di dem ñoom ils ont préféré se confiner comme sànq rek euh, ni ko sëñ bi waxee donc dañuy toog ci biir fi nga xamante ne di daara di fa jàng li nga xamante ne moom moo di dem beeg dikk bi par rapport ak parents yi nga xamante ne chaque week-end wala chaque euh, samedi li nga xamante ne moom moo di seen doom yi mais dañu préféré bàyyi leen foofu ba nga xamante ne euh, dara du leen mën a dal et puis jàngalalaale leen toujours li nga xamante ne moom moo di les mesures barrières wala directives yi ñu joxe par rapport ak cette pandémie la nga xamante ne xam nañ ko maanaam mooy raxas loxo yi di sol masque bi di wottandiku bu baax a baax ak di gën a yokk cet bi pour a euh, a aar seen bopp ak aar li nga xamante ne moom moo di askan bi juste nag di félicité waat jigéen ñi ndax boo leen ko seetloo boobu ba léegi rek daara yi ma fi indi yëpp ay soxna la pour wax ne ay jigéen lay jàng effectivement mm. donc euh, pour dire rek vraiment ñi ngi abattre liggéey bu am solo ndax boo xamoon bu njëkk daara yi euh, ci ñi ko doon njëkk ñi ko doon gën a def c'était surtout les hommes mais gis nañ ni macha allah soxna yi tamit ñi ngi bay seen waar bu baax ci li nga xamante ne moom moo di daara yi la dernière fois wane nañ ki nga xamante ne mooy jàngal ñi sëgg ñu koy maîtriser di ko tare ci nu mu gënee ñii di jàngal nga xamante ne ay xale yu jigéen kese moom mu taamu ci macha allah ay góor amaat na beneen yaa sayda boo xamante ne exemple la donte ibbiwul daara waaye day wër ci li nga xamante ne moom moo di prison yi di jàngal famille surtout famille comme par exemple camp pénal mun nañ ko citer muy jàngal bu baax li nga xamante ne moom moo di famille mooy alxuraan am na ñoo xamante ne dugg nañ fi bi ñuy dugg mu suñu xam benn euh, maanaam lettre sax ci li nga xamante ne moom moom moo jëm ci alxuraan mais dem nañu jàngal leen mm. ba ñu wàcc kon nag gàcce ngalaama soxna yooyu et euh, baay bàyyi euh, loolu rek nañu indi woon di leen di félicité waat bu baax et ñu gën a jàpp ci lii ndax lu baax la voilà oustaz Pape ñoom euh, jigéen ñi ay ndeyu daara lañu mm. mm-hmm. lu baax la baax na lañ Pape yàgg na yàgg na jigéen bu yor daara mm. ndokkeel ko bu baax a baax moom moom moom soxna Bintu Zahra Batul Mhm. batul nag moom xam nga dafa bokk ci turu Fatima yi mm. Fatima Bintu dañ koy Zahra mooy ku rafet ki moom mm. Fatima mm. dafa nduru woon bàyyam rasulullah waaw daan koy euh, batul mooy almunxatiatu ani dunia al muxbiratu bil kulliya moom Fatima ci bëggam nga yàlla nga xam ni euh, yonent bi daan wax euh, sallallahu alayhi wa a jigéenu Médine daf leen daan booleeg Sayyidatuna Aïcha mu leen daan jàngal mm-hmm. waaw waaw mu leen daan mu leen daan jàngal Aïcha mokk mokkaloon na ñaari junni hadis ak ñaar téeméer ak fukki hadis moom moom sayyidatuna Aïcha urwatu dafa wax ni musumaa gis mhm. musumaa gis euh, maa raaytu ahadan aalam bil xalaali mhm. wal xaraami wa tibbi wa chiari min aïchata mhm. musumaa gis ku gën a xam lu dagan mbaa lu xaraam mbaa mën a way poésie taalif euh, mbaa xam-xamu médecine ku ko gën ku ko gën a xam aïcha ah, abou moussa al ashari yi wax ni lépp lu ñu mës a lënt ne hadis bi wér na wala wérul bu ñëwee ci aïcha daañu euh, indil xam-xam bu leer ne bii wér na wala wérul mhm. te te jigéen la waaw amoon na jigéen yoo xam ne ay jàmbaar yi fakk tëdd mhm. lañu daan jàng mokkal alquranul karim mhm. teg ci yor daara daan jàngale maam ah, euh, nga xam ne moom dafa yoroon dafa yoroon daara jigéen la ca naawel daan daan jàngale bari na ay jigéen yoo xam ni ñoom ñi nii ñu def nii yor ay daara di jàngal góor ñi jigéen ñi loolu alaaj pap lu ñu lu ñu donn la ci jigéen ñi nga xam ni euh, ku mel ni Seyda Nafisa ku mel ni Umul Xayri jigéen ñu tedd ña nga xam ni ah, alaj pap dañu yoroon daara am na ay kàngami boroomi xam-xam yoo xam ni ay boroomi xam-xam lañu uh-huh. ay jigéen a leen jàngal kon alaj pap loolu yàgg na uh-huh. euh, kon nu ngi ndokkeel jigéen ñi nga xam ni uh-huh. ñoo yor ay daara ñu ñu war a taxawu lañu alaj pap ñu ñu war a jàppal lañu te te te te Assane jigéen euh, yàlla da ko may euh, pour mu dugal xam-xam ci bopp xale dafa yomb moo tax ku yebu boo amee doom bu jigéen sax fexeel xaw ma noo mënti def daal ba mu am xam-xam ci alxuraan waaw xam na loolu dafa nekk la nga xamante ni. Euh, ñu xam benn affaire. Hmm. mooy que ne dafa am la nga xam ne si jaamu yàlla. Hmm. góor ak jigéen ñoom ñëpp ñoom si bokk yam hmm. lu mel ni li ñuy waxtaane muy alquranul karim cër bi nga xamante ni moom la si góor am cër boobu itam moom la si ki nga xamante moom moo di jigéen moom la am ndax boo jëlee si jamono sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ustaz Quran mu ngi koy wax léegi ku mel ni saydna saydatna aïcha radiallahu anha noonu la meloon ku mel ni itam xafsa nga xamante ni itam doom la si saydna omar radiallahu anhu noonu la meloon ndax keroog bi yenn sallallahu alayhi wasallam génne àdduna ñu war a dajale alquran am na la nga xamante ni si moom la ñu dem jëli ji ko xawoon na am tuuti tiraillement sax mais finalement mujj na ko joxe ndax cofeel ga nga xamante ni amoon na ko si al alquran ndax jamono boobu fekkul woon ñu dajale li nga xamante moom moo di alquran ndax alquran ñu ngi ko dajale bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna ñu commencé di ko dajale si jamono Abu Bakar jamono Omar radiallahu anhu mais mu ngi mate si jamono Seydina Ousmane hmm. radiallahu taala anhu si lañ njëkk a mool ñu ne lii moom kaamil la bu mat sëkk si jamono boobu uh-huh. te avant loolu am na ñi nga xamante ni ay soxna lañ woon yor alquran doon ko toppatoo kon loolu day nekk la nga xamante ni ndono ba nga xamante ni dafa wëy ba tey suñu réew mi am ñi nga uh-huh. xamante ni comme Seyda Fatou Bintou Albatul ni ko mi nga mi nga doon seqal waxtaan ni mu koy defee Seydina Mariama Niass uh-huh. ni mu ko defee boo demee Tiwaawan noonu boo demee Touba noonu boo demee soxna mu xëy da baax yaa ngi dégg te loolu dafa nekk la nga xamante ni lu am solo loolu liñ si mën a déggee mooy góor baax jigéen baax na jigéen ñi dañu war a gën a mën a góorgóorlu si alquranul karim te ñu ngi siy mm. góorgóorlu ndax boo demee si suñu daara yaay ki nga xam moom moo di euh, Adja Binta Thiaw mm-hmm. da ngay gis chaque année xale yu jigéen yu jàmbaar yoo xam ne dañuy mokkal alquran ay si lim bu takkoo takkoo takko ñu ko siy mm-hmm. félicité mm-hmm. suñu yaay Adja Binta Thiaw ñoom Adja Anna Ndiaye ña ko say jàppale ak ñëpp te loolu liñ si dégg rek mooy toujours ndaw saa yu gën nekkee tout tànk rek fexeel ba alquran jiitu si dënnam fexeel mu miin alquran fexeel mu xam itam li nga xam ne moo di alquran parce que liggéey boo fi mën a jël bés dina ñëw ñu ne diw sàngam dem na retraite waaye jàng na alquran ba retraite jàngatul alquran amul fen oh. xanaa nga dem ba yàlla def li nga xamante ni moom moo ko soob si yow te saa yoo ko jàngee waxoon naa ko ay yiw kese moom la lay jural mm-hmm. te leer lay andi si kër mm-hmm. moo taxoon sallallahu alayhi wasallam boo gisee ñu bëgg ñuy naafila si kër yi bàyyi jàkka yi booy naafila di nga jàng alquran mm-hmm. bëgg bu fekkente ne même boo mënul ubbi kaamil bi di ko liir nga fay naafila di jàng fatiha qul huwallahu ahad qul yaa ayyuhal kaafiruun qul saar bi nga mokkal comme ça leeru alquran ak barke alquran mën a des nga xam ne moom moo di si biir kër gi mhm. loolu bokkoon na si li tax sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ñuy jullee si suñu ay biir kër te bañ ko def comme ay armeer ndax ay armeer mhm. kenn du fa julli ay armeer kenn du fa julli kon daal Baye Cheikh euh, Adja Amado li nga indi amati na solo mhm. ne nit ñi gën a góorgóorlu si al alquran gën ko jàng te xam ne jàng alquran day ubbi wërsëg jàng al alquran daf lay aar ndax muslaay boo bëgg mu ngi si alquran soit mu nekk si ligne yi wala mu nekk entre les lignes rek waate yàlla nee na maa farrat naa fil kitaabi min shay in ndax boo demee keroog yéen sallallahu alayhi wasallam ba muy génn ma màkka jëm madina suratu yaasin la jëloon di ko tari di ko ëf di ko sotti si bopp gars yi ba ñoom ñëpp ñu nelaw mam Maodo mhm. nee na radiallahu anhu yaasinun yaqra'u yaasinan fa jaa lahu wiqayatun lam yanal man kaana fi l ujumi Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu nee na mu ngay jàngal li nga xamante ni moom moo di yaasin mhm. suratu yaasin mu salaa sallam mooy yaasin nee na mu ngi jàng saara muñ ko duppee moom ngir protéger boppam si ñi nga xamante ni da jógoon pour faagaagal ko te loolu benn képp la si ndax yaasin mooy xolu alquranul karim moo tax sallallahu alayhi wa sallam yaasin qalbul quran mm-hmm. ah, ma ngoog jërëjëf yaa oustaz kon yaasin ñu jàll ci li nga préparé. <laughs> <laughs> une belle transition. <laughs> ma nekk une belle transition. loolu mooy ginaas mu tar. waaw war nañu organiser tamit benn daara de ci kër gi ñi ñuy jàngal jigéen ñi nekk tamit ci kër gi de. dëgg la ah? loolu chaque jour Seyda kaas ko defat bi. nañu nañu na ko na ko waaw. Seyda chaque jour moo mu ngi noonu jigéen ñi tamit bëgg nañu jàng de suñu genre. comme de mënuñu liir sax. ñu mënuñu tari Fatiha bu set. yàlla ah? baax na yàlla baax na yàlla baax na. seen afat bi tudd wax na ko ba tey. doyen ngi ni toog waaw doyen Anne gaaw leen boog ngeen organiser daara jigéen ñi fi ba ñuy jàng alxuraan bi. <laughs> ah Seyda ko. Eh, jàmbat na ko ay ca boog na gaaw de. wala ngeen jël ay ustaas di leen fay ñu ñëw seen i kër di leen jàngal. waaw ah, loolu tamit mm. solution la. loolu tamit solution am na benn ustaas bu fi nekkoon bi ma doon jàng ma doon jàngal de fii ci kër gi waaye. Ah. saa yu ñëwee ma ne ma ne ko demaatal mosuma bu ñu mën a ma wax yow kañ ngay mokkal saa yu déplacé ñoom mën na ko heure bi maa ngi na wuti ji xaalis mais xam nga ngay déplacé wu des fois est-ce que du gën waaw nga jàngi ji ko tamit mm-hmm. li ñu wax dans la vie rien ne sa perd rien ne se gagne ou s'arrache maanaam même ton temps da nga koy arraché maanaam da xeex pour am temps mm. pour mën a jàng noonu alxuraan dañ ne àdduna ah, amul gañ amul per lépp dañ koy dañ koy dañ koy foxati rek foxati xeex ak sa temps rek mm-hmm. boo ko amee rek mën a jàng alxuraan ah, parce que tamit loo si mën a dégg moo njëkk te mooy mujj nañ ko bàyyi xel bu baax mokkal fatiha ak ñaari saar sax mm. ñaari saar yu wér ak fatiha mu mag ndax fatiha soo jullee màkk sax soo jullee sa julli baaxul xam na njëriñu fatiha ak ixlaas ak kuleyal kaafiruuna moo xam na xam na njëriñu ñaari saar yu gàtt rek yoo yoo gànnaa yoo dem na màkk la jotalikat la jotalikat ba waxoon ah. bi imaam ne na njàng fatiha ak fukki lixlaas ak benn ah. moom muy wane ni daa xam lixlaas <laughs> mais imaam lañ jàng fatiha fukki lixlaas ak benn su ngeen xamul lixlaas nag mooy tabat géwél <laughs> la doon jaay <laughs> waaw saxam a ñàkk jàng dara jaru baaxul jàng nag du wees ah, jàng moom du wees léegi lépp possible na ah. mm-hmm. whatsapp sax mën nañ la ciy jàngal mm-hmm. euh, facebook bi mën nañ la ciy jàngal mën nga déplacé wu comme ki lay jàngal mën na déplacé wu donc tout est possible maintenant ak at yoo mënti am mën nga góorgóorlu rek euh, suñu borom moom euh, jàppale la ba nga am euh, yoo ci xam yoo xam ne nii euh, daf lay jëriñ mu ngoog jërëjëf Mado mhm. ci daara ji nga ñu yóbbu tey ñu jàll ci sujet bi nga ñu préparé Yacine jëm ci mbënn bi inondation yi ah dafa sonal sénégalais yi ci ay fan rek taw boo xam ne ni week-end bële passé ba président de la république déclenché plan Orsec Euh, mu jigi euh, mu def discours am mardi bi passé génnee enveloppe bu tollu ci 10 milliards euh, jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ci loru mën boobu nag daanaka dafay faral di am mais taw week-end bële passé am na boroom xam-xam sax yu ne taw saison la woon moo taw ci benn bis wala ñaar donc mën nañ ci ñëw bu weesoo suñu borom dafa bëri ay mbir yoo xamante ni yéen environnementaliste